بالله من الشيطان الرجيم وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم وعلى آله وصحبه وخير خديمه وأمته وسلم تسليما asalaamaaleykum ah, mbokk yi nga xamee ne yéen a ngi fi teew muy sëti kokki mbokki kokki ak dëkkandoo yi ak mbokki dëkkandoo yi Sénégal yi ñoo ngi nuyu mbooleen jullit ñi fi teew ñëpp ci turu association bi nga xamee ne mooy sàmm ndonal Serigne Makhtar Ndoumbé Diop ci turu section yi seen mbokk mii di wax moo Penda Diop Daarul Mahati maa ngi leen nuyu bu baax a baax a baax ci turu section yi te ñuy sant bu baax a baax yàlla mi nga xamee moo ñu may ñu teewee lii ay ati at cay lépp dëppoog ndigalam ci dox bokk ak jokk ko ak def lu baax rek yàlla na cee yàlla dimbali ñoo ngi nuyu suñu waajur wi fi nekk muy sëñ xabaar ak mboolem mbokk yi nga xamee ni ñu ngi fi tey jéem a jot li suñu kàddu di seeni kàddu ca xam ne dinañ ci lot lool kon nag ah, section yi nga xamee ne ñoo nekk ci mbir mii di ko doxal jubluwuñu ci lu may tënk mbokk gi dajalewaat lépp ñëpp doon benn ñu fàttaliku taxawaay bi nga xamee ne moom la sëñ Maxtaar Ndumbe taxawoon fii ci cosaanul islam jàngale alxuraan ak yare ak dundal diine ak dundal ak bokk association yu nag ñu ngi ciy jiital association bi nga xamee ne moo nekk ci dëkk bii di kokki ca nekk ca njiit la muy section kokki ca nekk ca njiit la sëriñ Maxtaar Kebe ak sëriñ Basiiru Jaxate ak sëriñ Papa Mbub ñuy liggéey seenub liggéey lool ca rafetal ko bokk kook mboolem doomi kokki yi nga xamee ne ñoo fi nekk ñoo ngi nuyu ca siyaar ca yëgle taxawaay section bi nga xamee ni mooy section Touba ca nekk ca bopp ba Serigne Mbacke Diop moom sëñ Mourtada ak Soxna Loota Diop ak sëñ Mourtada Xujja ñu ciy toftali section Daaru Muxti tey sant lool ci seen góorgóorlu ak seen taxawaay boo xamee ne ni mu mat sëkk la nekk ci jiitul bopp boobee Serigne Moustapha Diop al imam mii doon wax ak yéen. ak soxna Mbène Fallou Diop ak sëriñ Moustapha Serigne euh, Khadim Diop moom Serigne Moustapha Mbène soxna Astou Dame Diop moom Serigne Mat Dieng Diop ak mbooleem waa Daarul Manaan ñi nga xamee ne ñi ngi ànd ak ñoom te Serigne Thierno Ndiaye jiite leen ak soxna Fa soxna Mbène Fallou ay jàmbaar lañ ñoo ngi sant ci seen i taxawaay bu baax a baax naka noonu section Dakar nekk ca jiit la Serigne Mor Diop ak Serigne soxna Boussa Fall. ak soxna Mbène Demba Diop ñooñu ñëpp dañu ngi taxaw di ay exception yoo xam ne dañuy taxaw waxtu wu nekk di liggéey ngir bëgg lii jëm ci kanam ay jàmbaar lañu lool nag waaye bëgg nañ ku leen ci jàppale ngir yàlla ngir mbir mi gën a jëm ci kanam te xam ne kokki ñun rek ñoo ko war a defar kokki ñun rek luñ fi def ñoo ko war a defar lu fi waay def ñun la ko defal kon nag ñu gën a góorgóorlu ci taxawaay bi ay jàmbaar ngeen lépp lu fi am yéen ak mbooloo mi fu ñu nekk guddi ak bëccëg ñu ngi taxaw soññee fas yéene lépp doon benn ñu bëgg a jàpp ci suñ dëkk bii nga xamee ni amuñu lu dul moom ndax kat nit lu mu màgg-màgg suuf sa mujj doo ko gën a màgg ñun nag amuñu lu dul Koki ñu ngi sant section yëpp ginnaaw loolu nag ñun waa section yi ñoo ngi ñaan képp ko xam mën nañoo dimbale leen limbal dong lañu bëgg ku ñu fexe ba Kër Ngor a Jóob ak barab bu Maxtaar Ndumbe bee ku ko bëgg siyaare mu yomb loolu moom maa ko ciy ku ñu ko defalul nag defaloo ñu dara loolu rek lañ bëgg waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu rabbil alamin rahmani rahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi salaatu wasalaamu ala rasulillah muhammad rasulullah alladina maahu ashiddaau ala alkuffaari ruwamaa baynahum taraan rukaan sujjadan yabtaxuuna fadlan min allahi wa ridwanan siimaahum fi wujuhi min asaari sujud jërëjëfe sëñ Tuuba dafa nekk maam si Ibrahima Fall wante Mamatar Ndumbe alhamdulillah Euh, sama wax benn la jëkk gi sant la ndax ginnaaw sëñ xabaan malee toog ñeenti ndaw nañu yi mu yebaloon pour ñu liggéey lii jëkki ko ci armeel ya jëkki ko ci barabu Mama Tar teg ci bésu Mama Tar Ndoumbe suñ demee ba mu wóor ñu ni tey ji mi ngi nii doon ci dara defuma ci dara waxuma ci dara te dama tardé mu mu mel nii damay sant yàlla moo lay wan ni la nga sosoon ak say gaade insha allahu la taala dootul taxaw te wax affaire maxtaan bi mënul taxaw ndax kat ku sëñ Tuubaa ni lazi kaana fi zamani sayda kulla man kaana fi ummati saydina muhammad al muxtaar fi l ardi laahu kajooru sa mbir mënul tardé ngeen baal ma tey conférence mënul am wax ji mënul gudd dama sonn sonn maa ngi nii soog a yegg te bu ngeen xam woon fi ma jaar ba yegg si daa ngeen daa ngeen daa ngeen ma baal ñu leen di soññi rek surtout Matar Ndumbe surtout Matar Ndumbe daal warul niroog surtout kenn ci réew mi ku mën ci doon ndax kat Matar Ndumbe la woon te comme ni mu koy faral di waxee digganteem ak sëñ bu mag bi mat na cent cinquante et un ans cent cinquante trois ans di siècle ak genn wàll ba pare sëñ bi ñuy wax ak moom ndax kat li ma koy fàttali di wax nawle rek moo yëgal nawleem te koo xam ne yëgle nga dikkam cent cinquante ans avant mu ñëw mu ñëw wax ci yow am na lu ngeen diggee loolu baatin la moom fi laa daan waxtaanee at mu ne ren du ko mën waxtaanee ndax day gudd te duñ ma ñaan ma gàttal surtout ma daan lu mel nag du ñu xalaat ci moom lu dul alxuraan du ñuy nax suñu bopp Cheikh Moustapha mii ma jox micro bi cadre supérieur la boo ko joxee kaamil mu wàcce ko li ma leen di faral di wax man mii di wax ak yéen je suis trois fois ingénieur cadre supérieur directeur technique d'une raffinerie pendant 31 ans yàlla bu nit gisati xam ne dama jàng tubaab ndax surtout Matar Ndumbé la moo tax ñuy ñaan surtout Matar Ndumbé yi ak nu ngeen mën ti mel ak fu ngeen mën ti ne ak lu ngeen mën ti am ak ku ngeen mën ti doon fexe ba dellu si ci alxuraan ngi ñaan surtout Matar Ndumbé nu ngeen mën ti mel ak fu ngeen mën ti ne ak fu ngeen mën doon ak fu ngeen mën ti jaar bàyyi leen fu tur turu mbaax pour jàppante pour liggéey pour gëm yàlla pour gëm sa bopp gëm sama bopp de ak gëm Maxtaar Ndumbe moo tax li ma leen wax ni moom laa doonoon yëpp di cadre supérieur retraité naa depuis 17 ans defatuma dara lu dul tëneel ak jaamu yàlla tey laa gën a tey laa gën a nekk nit ba may jàng ba may liggéey loolu lay surtout Matar Ndumbe loolu ku gëm sa bopp loolu lay ku xam Matar Ndumbe billaahi wallaahi tallaahi yéen gone yi ku ci gëm Matar Ndumbe ku jox sa bopp Matar Ndumbe te jaaree ko Sëñ Tuubaa moom la ñu bàyyeel moom la ñu won billaahi wallaahi tallaahi doo am soxla doo am foo doo am lu la jaaxal du ci du ci santé du ci alal du ci xel du ci lenn allahumma salli ala sayyidina Muhammad ngeen baal ma dee wax ci nuy dellu di ñaan ne yàlla nañ ko fekkewaat ay at te wér waaye du ñaanal sunu waajur wi nga xam ne moo ne ci bopp bi di a Cheikh Mouhamadul Xaban Diop yàlla na ko yàgg jiite njaboot gi topp ci ginnaawam ba lépp loo xam ne nisar na ko ci dëkk bi nisar ko ci réew mi yàlla sottal ko te nu fekkee mu fekke ginnaaw loolu ñu ngi leen jotal nuyoo bi nga xam ne mooy nuyoo Cheikh Muxtar Narlo nga xam ne daaray Kokki ak bisub maam Muxtar Ndumbe bi benn bis la benn bis la boo xam ne képp ku kokki jaboote waxuma ku nekk ci daara ji ak ku fi nekkul ñoom ñépp ñu ngi ànd ak yéen ci bis bi ci xel ak ci xalaat ak ci bépp moyen boo xam ne bii war naa mën a jagal bis bi jaare ko nag ci secretariat bi nga xam ne moo ŋànk association bi ëmb mboolem ñi jànge woon ci daaray kokki te ka nga xam ne mooy la secrétaire général di oustaz Moustapha Wayel ànd kook al oustaz Ahmad bin Cheikh Lo ñu gën koo xam ci Modou Anta Lo dafa am ay yitte yu mag a mag yu nekk ca Dakar mu mel ne sunu mbokk di sunu xarit di sunu mbokk daara sëriñ Abdul Aziz Silla moom la way juróomu jigéen génn àdduna ñu di ko ñaanal tey jii ca Dakar looloo tax ñu ne ñoom nañ yem foofa ñun ñu wuutu leen fii taxaw seen taxawaay waaye seen xel yépp ak seen xalaat yépp tey mi ngi fii ci kokki mi ngi fii ci ëttu Maam Moxtaar Ndumbe bii bu ko defee it ñoo ngi rafetlu bu baax liggéey bi yëg na it mi ngi avancé mi ngi jëm ca kanam ñi ngi gën di am ay réalisation yoo xam ne dafay jëmmal jëmmi ku tedd kooku di Maam Muxtaar Ndumbe nafa nafaana allahu bi barakaati li ci topp it délégation bi nga xam ne moom laa jiite tey ñu taxaw fii maa ngi ci ànd ak ku ñu wax Serigne Cheikh Lo Mariama ak ku ñuy wax sëriñ Ahmad Cissé ak ku ñuy wax sëriñ Mamadou fay ak sëriñ bay Kébé ak sëriñ Ahmad Diop ak mboolem ñi nga xam ne nag tey jii ñi nga xam ne ñoo ŋànk daara ji ñépp ñi ngi fi toog kenn desul muy sëriñ Fallou Kébé sëriñ sa Ndiaye Cheikh Mouhamadul Fadal loo bi nga xam ne mooy adjoint sëriñ Mokhtar sës ci moom ñoom ñépp ak sëriñ Amar kenn desul ñoom ñépp ñi ngi fi bu ko defee xëy na lii dafay di délégation symbolique boo xam ne rek mënuñu koo ñàkkati a tudd ñépp a ngi fi di leen dellu di leen ñaanal di sàkku ñu ñaanal ñu di sàkku it liggéey bii nga xam ne moom la maam Muxtaar Ndumbe sañce woon kokki di alquranul karim mu gënal ko lépp te doomam ju baax ji Cheikh Muxtaar Naar Lo wuutu ko ci wuutu ci bàyyam ba Cheikh Ahmadou Sakhir liggéey boobu yàlla na ci yàlla jàppal boppam ba mu a ba ëllëg yowmal xiyaama ñu nekk ay làmp yoo xam ne yi dañuy niital askan wi ñu dox jëm ca jannatul firdaws loolu yàlla mën na ko yàlla na ko def aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah lii wa lakum wa lisaa'iril muslimina fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa nag euh, mi ngi jàngee mi ngi juddu ci 1701 am na version yu bëri sax yuñ ciy wax waaye ci waragum njataar la gane àddina kër baayam mokkal alxuraan ji daldi dem nag pir ci daaray xaali Amar bi mu fa jógee la dem caameenug jolof ci daaray maam Masamba Caam euh, fekkante fa ak maam Maaram Mbàkke waaw gis nga mi ngi gane àddina waragum jataar kër baayam kër maam Sàmbaay ca waragum jataar euh, ci 1701 jàng fa alxuraan ba mokkal daal di jëm Pire ci daaray xaali Amar nga xam ni booba Pire université la mu nekk fa ba lam fa doon jàng mu mokkal ko mu jóge fa nag dem caameenug Jolof ci daaray maam Masamba Caam fa la fekkanteeg maam Maara Mbàkke ak Mor Malamine kon wóllëre kokki ak Mbàkke ci diggante maam maaram la ak maam Maxtaar Ndumbe wante jamono yooyu maam ma maam bi nga xamee ni nag e, nekk na ci daaray maam Masamba Thiam ba jóge fa daldi xool ni réew mi amul naxu di grammaire arabe te amul benn làkk boo fi làkk fii ci àddina te maîtriser woo grammaire mu daldi di dem nag njagan ca gànnaar def fa juróomi at jàng grammaire ba ñibbi si dem waragum njataar kër baayam fekk na booba maam Maaram lu mu bay ak lu mu am bu nawet bi jeexee rek day jël ci mbay mi yóbbu waragu njataar ngir dongo yooyu maam ay yoroon yi maam Mataar yoroon kër maam Samba ay ñu Mataar ñëwee nag daa dem waragu njataar ànd ak dongo yi dem cuuruur kër nijaayam nooraan ba nooraan ba jeex mu bëgg a dellu waragu njataar nijaayam ne ko dama bëggoon a dëkk yow ci genn kër mu ni ko mënumaa dëkk ak yow ci genn kër mu ni ko li mu ni ko damay bañ bu ëllëgee ma samp samay sàkket ñu sempi ko baa ma ruj ba noppi ñu ni ma fii doo fi bay gis nga jom ngor fit nga yàgg na ci dëkk bii di kokki sama baay benn jour dañuy waxtaan mu ni sëñ Basiiru da koo waxoon ne ko nit bu xamul boppam euh, du am ngor te nit bu amul ngor du mën a jaamu suñu borom waaye bi mu ñibbisee nag Sénégal gépp nag bi nga xamee ni nijaayam nee na ko xoola ci àll bi fu la neex ma daggal la mu ni ko boo ma mayee fu ma moomal sama bopp danaa dëkk ak yow fekk maam Matar ñaanoon na fi mu war a dëkk ci daqaar bu sax ci kaw xorondom la waroon a dëkk muy dox ba fekk daqaar bu sax ci kaw xorondom mu ñaan falam fay ñaan listixaar ko tuddee ko Medinatul Munawwara gis nga kon lislaam yàgg na ci dëkk bi waaye la ca indi turu kokki mooy juróom-ñaar fukki taalibe dañoo xëy di liggéeyal maam Matar doomi naar ba ko jàngaloon alxuraan ñëw di seet si maam Matar ñu ànd ca tool ya di seet dongo ya fan doon noppaloo ca ker daqaar ga foofal ndox suuf nopp mat doominaar ba mu ni nan ko njokk ci sama taatu jàkk ji loolu moo indi njokk ñu denc ko fa waaye jamono yooyu senegaal gi ñu nekk Kajoor Bawol Siin Saalum Njàmbur Gànjool fu ne waaye jóge fa di xeeñ suti xam di xeeñ xeeñ tuusi xam-xamu naxu boobu maam Matar jële woon gànnaar Masamba faa xujja doomam bàyyi ko deqale fekk booba gàddaayoon na dem get deqale gis nga deqale googu buñ ko tuddee kokki guy da ci génn kokki kàdd kokki daqaar kër mu ndumbe xari daaru jóob waaye nag biraan jaara njaay bàyyi ko kebemeer daramaan faa kumba ci la daramaan maa kumba jóob doon doomi neer nga xam ni seen ñaari yaaya bokk ndey ak baay kumba sekk mi jur maa kumba ak ndumbe sekk mi jur ma taar ndumbe bokk ndey ak baay njañ ma xuréeja baay ko mbaakoon sin lay kan daramaan faa kumba maa kumba baabakar xumba galik xumba daramaan faa kumba ci la daramaan amat faat sàmb kebe ngët njañ ma xuréeja mbaakoon ma yoro ndaat kebe ndaat bi mu noppee maam mataar dane ko bul dellu ndaat demal sañ ngiij faal Euh, Serigne Dramé bàyyi ko Dramé Escale gi ci ginnaaw Ndofane euh, waaye Njañ ma Xuréja Abdou Anta Dikke bàyyi ko jëmooy Baara Anta Mbaj euh, Baara Anta Mbaj bàyyi ko jëmoon Madou Sina bàyyi ko Makka bàyyi ko Makka waaye at moomee tamit ñuy wax ne ci la leen dajale nag ngir njukkal maam Maara Mbàkke ci teraanga ji mu ko doon defal ci dongoom yi bi mu demee Njagana dem jàngi moo waral Matar Ndumbe daal di leen di ñaanal daal di ku ne mu jox la suuf njaga Fatim Diagne bàyyi ko woon na njaañu medun ñëw ca daara ji di fa jàng si bi mu noppee maam mataar dani ko bul dellu njaañu medun demal sanc njaañu njaga moo waral bi nga xamee ni nag ñaanal na leen ni leen barkeb kokki ak coow la topp na maaram Mbàkke ku bëgg barke toppi ko ñaan naa fu lu baax nekk sama askan wi bokk ci ñaan naa alxuraan sax daa kokki loolu lépp am na fii gouvernement bu fi ñëw surtout Matar Ndumbe dana doon ministre kenn nga ndee toog ca ginnaaw mi Mamadou Diop Matar Ndoumbé ma Matar Ndoumbé rek ñoo doon ay ay ministre ku mel ni Khadim Diop nga xam ne nii Kër ma Ndoumbé xari la dëkk kokki gii la dëkk waaye nag gis nga mu ne mu tuubloo Saaxeer Fatma ndax Saaxeer Fatma bi mu ñëwee dañu ko juróom fukki dëkk ak ñaar yaa leen yilif waaye yow bu la boo nangoo dëkk bu nekk nga taxaw ca yalwaan ma xam ni yow li ngay woote dëgg la ci yow moo waral mu ne ko boo demee ni nga nekkoon bu ko gisati silmaxa ca mu dem sanc cilmaxa looloo indi cilmaxa mais xaadim burum jumaa ji ki raw ñëpp nag bi mu ñëwee dafa ne ki ñu denc fii di ma taar ndumbe ku mu maaseeloon jamono mooy su xutbu samaan waaye dina mujj mën sëñ Bamba dëkk ba ma gën a bëgg muy Tuubaa ay ak moom kon nuyoo ci Mbàkke bokk ak moom Cheikh Moustapha sëñ gépp gépp fi leen dëkk waaye nag may tëj rekk juddu jikko daraja jom l'islam intelligence compétence expérience personnalité yàgg na ci dëkk bi. am na mbégte lool ci dara leen fii tey e, mbégte mi am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ndax woote mu ñëw si la daal doy lépp te association bi di association Mame Makhtar Ndoumbe dama leen di soññi di leen ñaax ci ñu xam ne dugg nañ euh, dañoo nekk ci kii bu jafe-jafe liggéey bu jafe-jafe-jafe ndax ku toll ne Mamadou bi nga bëgg taxawal wala boog nga def lu niroog la mu doon def kooku war ngaa xam ne yow ci coono rek ca ngay dëkk ci wàllu fisik ci wàllu finance lu mu ci mën doon nopp lu moom du am may soñ saa bopp di leen soñ di cee beral loxo waa Daaru Muti teg cee waa Daaru Manaan teg ca waa Touba teg cee waa Ndakaaru teg cee waa Ndar ak waa dëkk bi nga xam ne noo bokk lii di ko taxawal ba mu egsi fii tey ñooñu maa ngi leen di gërëm di leen sant ci tur association bi waaye ci suma tur nag ndax doyloo gi ñu ma doyloo ba taxaw fii di ma wax loo day seen ak mbaax waaye ñi ma daq wax ëpp ma xam-xam ñoo ne ci biir ñoo amu mbootaay googu waaye seen mbaax ak seen ngor moo tax ñu fab lii tey teg ko ci samay loxo ni ma naa ko wax danaa ci lot lool nag waaye damay jéem ndax bu bu mbooloo fabee seen kàddu teg ko ci loxo loo mën def rek fokk da nga jéem wax ci loolu mu doon. ma leen di xamal ne nag association bi réalisation yi mu def bala ma wax dara damay joxoon jàkka ji kenn ci waa association bi ci moom ci la sox ko dem lu mel ne jumaa jee nga xam ne Serigne Saliou Mbacké moo nu ci di moo nu ci moo nu ci jàppale bu mu mel ne mel loolu lépp ci loxoy association bi la jaar. tey nag mu sumb daara ji nga xam ne dañoo waxoon nag sëñ Saalihu ne ko kër maam Maxtar Ndumbe dañoo soxla jumaa waaye dañoo soxla ab jàngu boo xam ne bii dañoo fas yéene dellu si xam-xam bu fi mag ñi bayoon loolu tey ci fo boobu faas lañ tool ñu at yëpp ñu di ko dox am na nag plan ba jafe woon nañu lool waaye suñu borom dimbali nu ci ba am na plan ba plan ba ñëw na di 982 millions loolu kon euh, daanaka milliard la waaye bu soobee yàlla yàlla mi nga xam ne moom moo am moo am moo man noo koy def nan ko noo ngi koy tàllalal loxo ni ko tàllale woon loxo ci bi lu mel ne jàkka ji tàllal ko loxo ne ci jumaa jumaa ja mu defal na ko ba mu mel nan bëgg yaakaar naa bu ci bu ko bu koy tàllalal loxo ci daara jooju nga xam ne dafa ëmb mboolem fànni xam-xam am na ci biir ay am na ci biir ay logement am na ci biir lépp lu l'islam di soxla daal ci biir daara jooju fas na yéene am ci biir ba ci ba ci ba ci ba ci fu ñuy sàmm wér gi yaram ak lépp dara manqué wut kon loolu association mi ngi ci fas yéene sumb euh, liggéey boobu mi ngi ci nag di tàllal loxo réew mi ak président képp koo xam ne kii fooy def ko lu baax nga suñu borom association bi daa ngi lay tàllal man nag en tant que président bala wax dara man sama sas seen tonne ciment boo jógee fii incha allah danaa joxe ku ca ku ca topp leen loo mën def man daal na nga xam ne seen tonne ciment man yow Cheikh Lo na nga xam ne man danaa ko teg si loxo bu soobee yàlla mi sama tàmbalee woo tàmbalee sas li ca topp. mooy dëkk bii di kokki dëkk bi ki ko sanc tudde ko Madinatul Munawwara dëkk bi booloo la nar la nekkoon naka jekk nekkoon na fi nag ba dem jekk ñaari dëkk ñaan kokki escale di wax kokki village waaye kokki ma Munawwara moo am booloo boobu nga xam ne moom lañ fekkoon maam Moxtaar mu bay boole ko taalibe yi boole ko mbokk gi boole ko njaboot yi ñu nekk ci ba mu egsi ci suñu loxo benn waay boo xam ne xamuñ fu mu dëkk jóge kii rek dikk fii naan nag léegi dañoo war a dellu soit kooku ci escale ñun loolu lakki lakki tubaab loolu ko woon maam tar nu bi lakk loolu loolu ma di nëpp woon la war a waxoon wax kooku ànd ci ak njabootam ànd ci ak i talibam ñu nekk di sañ ci kooku taxawal ko bi fi tey benn waaye jóge ci biir dugg ba barke bi neex ko nag tey mu taxaw ci biir fu mu dem ci mbooloo yi ne léegi damaa bëgg ñu def kooku ci escale kooku village loolu neexul waa kooku neexul sëriñ bi neexul njabootu sëriñ bi kooku fu mu ko mën a jële loolee na ko delloo gannaaw te na xam ne moom deloon cosaan dëm lam dëkk moom xumu kumu waaye cosaan la mu dëkk mën a foo am pi pii ñi nga xam ne ñooy jàng ñooy jàng français di wax di di di di di def cercle surface di cercle boo leen waxee mooy trois virgule quatorze mënu koo am fu mu dëkk kon bu mu dikk fii bëggoon a différence bu mu ni différé bay kooku ne delloo waxam jooju wax jooju neexunu tey neexunu ëllëg wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu jërëjëf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 bala ma dugg ci waxtaan wi sëñ bi Samba dafa xër bëgg a def rôle communicateur traditionnel am bëgg wax na moom fii bokkee yéeneem àgg na nga da nga am occasion boo ko gën a waxee waaye li ngay wax lu gàtt la boo ne Pape Diop Serigne Xaban Diop mooy jox sama yaay di Diop ay sagar loolu doy na sëkk moom su may dem dana jox sagar yu ma yóbbu sama yaay ndax moom xam na du ñu demee kon fii man ci laa bokk ci loolu laay jële kàddu gi ci ñaari tànk benn bi moo dama fee nekk euh, ci bokk ci famille bi ma doon wax en tant que président du comité de bi doon organisé léegi waaye itam man cee wax ci ndomb yi nu àddina dénk te yàlla mooy dénk ndomb ku ko soob ma soob ko ci jamono ji mu dénk ma ko ma nekk la le maire de la commune de Koki euh, kon maa ngi nuyu ñëpp nuyoo bi ma ci jiite suma waajur sama nijaay El Hadji Xaban Diop moom mi Serigne Koki di ko euh, ziara di ko tatagal di ko ñaanal yàlla na yàlla fekk fanam mu gën ñoo jiite. yàlla yombal ko yen bi ba lépp li nga xam ne yéen na ko liggéeyal maam waajuram maam Maxtaar Ndumbe Jóob yàlla jàppandi ko ko ba ñëpp gis résultat yi di jaarale ci moom sama nuyoo bu jëm ci kilifa diine yëpp temps bi dafa xat du ma tudd seen tur ñoom ñëpp gis naa leen waaye bépp kilifa diine bu toog ci jataay bi maa ngi lay nuyu di la ziarate di la tatagal bu baax di nuyu suñu mm, sëriñ suñu sang si waa sëriñ suñu sëriñ Touba di leen jox seen wàccukaay te di leen ziara bu baax di ziara bépp kuréelu euh, dëkku diine boo xam ne teew na te ci base bi ak ci tund wi euh, di nuyu la délégation officielle euh, bi fi représente le président la République son excellence maître son excellence Macky Sall te suñu frère Moustapha Diop jiite ko Euh, maa ngi koy nuyu bu baax te di ko ziara on se connaît très bien euh, maa ngi koy nuyu sama frère la ñoo bokk deret ñoo bokk lépp maa ngi koy nuyu di ko dalal jàmm fii ci commune Koki ñun nekkuñu commune Louga mais commune Koki lañ nekk te maa koy dalal fii donc maa ngi koy cité la bienvenue ak euh, membre délégation bi yëpp nag te ñuy ràññee ci suñu sous préfet suñu adjoint préfet département de Louga monsieur Thiaw di ko nuyu bu baax di nuyu di yóbbante suñu nuyoo ci préfet Alioune Badara Diop. vraiment di ko sant di ko gërëm ku amoon yéene ci bis bi la ñëw na fii def ay CRD décentralisé def na ko Koki def na ko Koungheul def na ko fu nekk amoon na yéene bis bi am réussite te bis bi vraiment am na réussite tey yàlla dafa a nekk bi ma déggee mouvement yi mel ne moom dañ ko déplacé xëy na loo tax amul jotu ñëw fii waaye ñun ñëpp ñoo ngi seet ne ku amoon yéene ci bis bi la te defoon na matuwaay yi waroon def yëpp ba bis bi réussir loolu ñoo ngi koy sant bu baax Euh, di nuyu le sous-préfet Talla Ndiaye son adjoint di ko nuyu CADL ak ñi nga xam ne ñooy délégation bi yëpp bàyyiwuñu kenn euh, di nuyu ñi nga xam ne aussi dañoo yor ay ndomb ci réew mi ku ci mel ne suñu jigéen euh, madame Koumba Ndiaye suñu jarbaat nekk ci conseil économique social environnemental nekk fa vice présidente moom itam noo koy nuyu di nuyu suñu frère Sélém Messa Ndiaye chargé de mission à la primature mais aussi di nuyu suñu frère. Euh, Samba euh, Gueye mi nga xam ne dafa nekk euh, ministre conseiller à la présidence di beral nuyoo aussi suñu xarit suñu frère Mamadou Diallo directeur des domaines directeur national des domaines ak toute la délégation qui l'accompagne moom ñi ko ñi ma dal ñëpp samay am di jàmmañ lañ samay jigéen lañ vraiment ñu ma xam lañ ñu ma yàgg a jokkoon la ñu ma jàkk safonte la maa ngi leen di ñoom ñëpp bàyyiwuñu kenn di nuyu sama nattango maire yi fi toog gis naa leen ñoom ñëpp la délégation de Thiamène ñu fi toog ñëpp maa ngi Ah, di nuyu daal góor jigéen mag di nuyu suñu frère Pape Dia ya mi nga xam ne moom tam dafa nekk ci haut conseil des collectivités territoriales eh, di ko souhaité moom tam la bienvenue fii di nuyu góor jigéen mag ndaw bàyyiwuñu kenn kàddu gi du gudd gi benn lay doon rek mooy eh, dalal nit ñi fii ci commune fii ci Kër mu nekk ci benn village yu 57 villages yi composé la commune de Koki Eh, di leen dalal jàmm toutes les délégations ak fu mu mën di jógee ñoo ngi leen di wax bismillah dal leen ak jàmm yàlla na fi yàlla def ngeen am fi lépp lu ngeen fi wut ci barke borom bis bi di Mame Matar Ndoumbé Diop ci barke alxuraan mi nga xam ne moom lañ tuddee bis bi. Eh, dans su population yi suñu amee occasion bu mel nii il faut ñu koy wax eh, l'occasion faisant le larron dañ dañ ciy profiter war a wax li nga xam ne soxla gox bi bi ci jëkk mooy suñu yoon bi di jóge ko kii di ñëw Kër Ngora di dem ci barab bi nga xam ne fa la sëñ Maxtaan Lumbe Feeru ñu ko fay ziare ji jàll ba Mbàkke Njog nga xam ne moom foofu la sëriñ Abdou Karim Mbàkke nekk muy yoon woo xam ne daf nit ñi dañ koy soxla tout le temps waxuma ziare bi rek képp ku ñëw ba ngaa dem ba ca maam Maxtaan Lumbe su ko fa ziare ko waaye nit ñi bis bu ne dañu fi jàll di fa dem di def seen ñaani bopp yoon wi bëgg nañ ku ñu ci dimbalee monsieur le ministre ak yéen ñi fi taw yëpp ak euh, responsable politique yëpp ñu ngi leen koy jottali fu waay mën a dox ba loolu sotti ngeen taxaw ci ba yoon yi ñu defar ko ba mu mel na mel ba nga xam ne vraiment liñ bëgg ci Koki ni ak Kër Ngouda dañ ko mën bu baax beneen bi aussi ngeen jàppale ñu pour l'éclairage public de Kër Ngouda ak même les villages yi nga xam ne jege nag moom euh, ba nga xam ne dañ koy yokk ba liñ ci soxla mu mel ni war ndax dëkk bi dafa yokk mbàng dem ay quartiers yu bari te courant bi dafa nekk au centre agul feneen ñu mën a def loolu Euh, ba mu dem ba ca armeel ya dem ba ca mba Mbàkke Njob nga xam ne ci dëkk boobu la bokk euh, beneen bi aussi président de la République mi ngi am un programme ambitieux pour le développement des cités religieuses ci loolu dégg naa léegi le président du comité d'organisation mu wax ne euh, dañoo bëgg a def la fondation Mame Matar doo Diop et defe naa ne bu ñuy wax un érudit islamique international Mame Ndoumbe Mame Matar Ndoumbe Diop ci ñi ñi ñuy boole ci ñi ci jiitu ci lay bokk tey itam defe naa kuy wax alxuraan ak jàng defe naa ne kokki moo ciy jot ku gis daara yi sëñ eh, naar Naarlo bi ay avec 3600 talibe gis daara yi Buudi gis daara yi Kër Ngura gis daara yi koñ quatre coins cardinaux yëpp ay daara nekk fa bëgg nañu ñu jàppale ñu ba kokki nekk eh, ci li nga xam ne moom la ñuy def ci cité religieuse yi surtout pour la fondation de Mame Makhtar Ndoumbe bi nga xam ne le président commencé na joxe 5 tonnes. président l'habilité ak ñeneen ñëpp jàpp ci ba fondation bi mën a taxaw ñu def ko li nga xam ne moom lañ ko bëggee bu baax foofu daal la ñuy tënk suñu kàddu di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla na yàlla defal ñu fekk ay déwén yu bari yàlla yokk sutura ak teranga yi te ñu gën a am esprit de responsabilité esprit de retenue eh, ñu xam ne yàlla dafa pare ci li muy def lépp eh, lim cër yeeg ndomba yeeg wërsëg yëpp yàlla pare na ci te ku bàyyi yàlla sa bopp mu yor la sa bopp yéen i jëru ko ay mbokk lañ ay julli lañ nañu waxante jàmm yéen te jàmm bu ko defee yàlla indi jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. taala wa barakaatu. di nuyu suñu papa suñu sëriñ. nee di nuyu suñu papa suñu sëriñ. sëriñ Xabaan Diop. sëriñ Xabaan Diop. di kilifa dëkk bi. di kilifa dëkk bi. di jiital ci nuyoo bi nag. nee di jiital ci nuyoo bi. sunu sëriñ sunu sang sëriñ Mouhamadan Mbacke. sunu sëriñ sunu sang sëriñ Mouhamadan Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadul Moutada Mbacke ibnu Cheikhul Khadim. di nuyu sunu sëriñ sëriñ Koso Mbacke. di nuyu sunu sëriñ sëriñ Koso Mbacke moom sëriñ Muntaxa moom sëriñ Basiru Mbacke moom Cheikhul Khadim. di nuyu sëriñ Makhtar Lo bu Kokki. di nuyu sëriñ Makhtar Naar Lo bu Daaray Kokki mu sëriñ Mat Saxir Lo. di nuyu association membre association Kokki yëpp. di nuyu membre association Kokki yëpp. di nuyu autorité politique ak administrative yi fi teew yëpp. di nuyu autorité politique ak administration yi fi teew yëpp. comité d'organisation bi. ak comité d'organisation bi. ak le maire de Koki. ak le maire de Koki. di nuyu également euh, le directeur des domaines Mamour Diallo. di nuyu également le directeur des domaines Mamour Diallo. di nuyu kilifa diine kilifa aada yi fi teew yëpp. nee di nuyu kilifa diine kilifa aada yi fi teew yëpp. ak mbokk yi fi teew yëpp. ak euh, mbokk yi fi tey nag. ne tey nag. son excellence le président Macky Sall. son excellence le président Macky Sall. daf ñoo tànn wóoluñu. daf ñoo tànn wóoluñu. yónni ñu. yónni ñu. fii tey ci kokki. fii ci kokki njage si jéey. di suñu dëkk di suñu dëkk maam. di suñu dëkk di suñu dëkk maam. ngir ñu ñëw fi tey. ne ngir ñu ñëw fi tey. ci bis bu màgg bi. ci bis bu màgg bi. ñëw teewal ko fi. ñëw teewal ko fi. indil ko ziyaaram. indil ko ziyaaram. mais également sàkku sil ko fi ñaan. waaye également sàkku sil ko ñaan. ndax son excellence le président Macky Sall. ndax son excellence la président Macky Sall. xam na li suñu maam Matar Ndumbe Diop. xam na li suñu maam Matar Ndumbe Diop. def fii ci islam ci dëkk bi. def fii islam fii ci réewum Sénégal. xam na digganteem ak suñu borom. xam na digganteem ak suñu borom. ak màggaayu bis bi. ak màggaayu bis bi. ba tax na tey mu yónni ñu fi. nee ba tax na tey mu yónni ñu fi. ñu ñëw sàkkulul ko fi ñaan. ñu ñëw sàkkulul ko ñaan. ñaan ñaan. ngir Sénégal am jàmm. ngir senegal am jàmm. ba nga xam ne. ba nga xam ni. jëye ak musiba yi nga xam ne. jëye yi ak musiba yi nga xam ni. ñu ngi koy dégg ci yeneen réew yi. ñu ngi koy dégg ci yeneen réew yi. yàlla sunu borom musal ci Sénégal. yàlla sunu borom musal ci Sénégal. saxal fi jàmm dàkk. ne saxal fi jàmm dàkk nag. di ñaan si ñaanit. ne di sàkku si ñaanit. Ah, yàlla sunu borom may ko wér yaram. yàlla sunu borom may ko wér gu yaram. may ko kattan. may ko kattan. ak tal. ba nga xam ne yéene ji nga xam ne am na ko ci réew mi. ba nga xam ne yéene ji mu am ci réew mi. ak jéego yi nga xam ne. ak jéego yi nga xam ni. Ah commencé na ko fee dox. commencé na ko fee dox. lu bari nit ñi gis nañ ko ci. lu bari nit ñi gis nañu ko. bu dee ci biir ville yi gis nañ li mu fi commencé liggéey. bu dee ci ville yi gis nañ li mu fi commencé liggéey. bu dee ci monde rural bi gis nañ PUDC bi. gis nga ci monde rural bi gis nañ PUDC bi. ak jéego yi mu fi war a def. ak jéego yi mu ci def yépp nag. ba taxoon ñu ñëw. ne loolu taxoon ñu ñëw. seet si sëriñ bi. seet si bi. sàkkul ko ñaan. sàkkul ko ñaan. yàlla may ko kattan. yàlla may ko kattan. ak wér gu yaram. ak wér yaram. ba mu mën a am deuxième mandat. ba mu mën a am deuxième mandat. am majorité. am majorité assemblée nationale. ba nga xam ne yéene ji nga xam ne am na ko ci réew xam ne yéene ji mu am ci réew mi. mu mën koo àggale ci jàmm ak salaam. mu mën koo yeggale ci jàmm ak salaam. bu ko defee bu ko defee Sénégal mën a avancé nag. muy njariñu askan wépp. muy njariñu askan wépp. kon nag. wax ji du ko guddal. nee wax ji du ko guddal. da koy yemale fii tënk ko ne di sant ñëpp di leen gërëm di wax ne délégation bi mu àndal également di ñoom la war na jiital lim leen. sama xel a xaw a fattu rek. na xel ma a fattu nag. ndax maa ngi mi ngi ànd ak préfet département bu Louga. sous-préfet département bu Kokki. ak sous-préfet département bu Kokki. ak ñoom responsable politique yi dëkk Louga yëpp. ak responsable politique yi dëkk Louga yëpp. ak ñi ci département bi. ak ñi ci département bi. ak ñoom Sele Maysa Ndiaye. ñoom Sele Maysa Ndiaye bu Kokki. ñoom vraiment ñoom Pape Diop. nee na ñoom Pape Diop teeruñu ci dëkk bi. ak ñoom Koumba Ndiaye. ak ñoom Koumba Ndiaye. nee di ko rafetlu bu baax a baax. kon ñu ngi leen di sant. di leen gërëm. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu Babacar Samb maa ngi lay nuyu. ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ci nekk turam ak santam ci turu sëriñ Mouhamad Xabban Diop sëriñ kokki di leen sargal di leen tatagal di leen dalal jàmm di leen masawu coono ci jéego yi nga xamante ne bii dox ngeen ko ci barab yu wuute ba agsi fii tey ci bis bi ngir dundal lislaam ngir dundal ak bokk sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di nuyu di sargal di tatagal délégation yi nga xamante ne bii jóge nañ ci gox yu bëree bëri ñëw fi di ci jiital délégation kër yi diine yi di ci jiital délégation bi nga xamante ne bii moo jógee ci dëkk bu sell bu màgg bee di Touba jóge ci Serigne Sidi Mokhtar Mbacke te njabootu Serigne Touba gi nga xamante ne bii ñoo fi nekk teebal ko fi ñoo ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm waaye nag di xam leen ne ñoom it dañoo ñëw ci seen bis ñii dañoo féete yi rek di taxawee bis bi waaye liñ ci am ñoom it moom lañ ci am kon sëñ bi nee mu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm. di leen jottali nuyoom ak siyaaraam ci kilifa gu sell gu màgg ga di Serigne Sidi Muxtaar di ko ñaanal yàlla dolli ko wér dolli ko man-man defal ko tawfiix ba lim yéene ci liggéeyal ko lislaam ci biir waaru Serigne Touba lépp suñ boroom defal ko ko mu mattali ko ñu ànd ko moom fekk Serigne bi nee na mi ngi gërëm bu baax a baax monsieur le président de la république monsieur Macky Sall. monsieur Macky Sall bi nga xamante ne bii mi ngi ñëw fii ci dëkk bi ñëw na ba ci sëriñ bi saafonte ak moom ñëwaat fii saafonte ak moom ànd ak moom ba Louga gisee ak moom wax ak moom ay kàdd yoo xamante ne bii defe naa ne njabootam gi nga xam ne mooy dox diggante ak moom saa su ne kàddu googu ñi ngi koy fàttalante kon mu mel ni wëllëree dox na seen diggante bu yàgg sëriñ bi nag nee na canam nekk woon di ko ñaanal nee na mi ngi koy ñaanal jàmm di ko ñaanal tawféex waaye itam di ko ñaanal itam jàmm ci biir réew mi. ndax jàmmi réew mi jàmmam la jàmmam itam jàmmi réew mi kon sëriñ bi nee na mi ngi koy ñaanal loolu bu baax a baax di fàttali nag monsieur Moustapha Diop mi nga xamante ne bi doom la ci kër gi comme ni ñu ko waxee léegi ndax ñaari maamam yëpp di sët ci Mokhtar Ndoumbé kon moom kenn la ci ñi waroon a bokk ci comité d'organisation bi baayam mi nga xamante ne bi ñun suñu jaam la di jël si fi ay sangari njaamam defe naa ne loolu leer na ko kon ñoo ngi koy nuyu di ko fàttali li nga xamante ne bi mooy wëllëre wi dox diggante sëriñ bi ak ki nga xamante ne bi mooy président de la république ci lu gàtt rek tudd nañ ko fi muy ay doléance yoo xamante ne bi waxoon nañ ko fi di ko ko fàttaliwaat ndax moom président Macky Sall ci boppam ba yàlla dogalee mu nekk premier ministre ci waxtaanam ak Serigne Mbacke soxna loo yàlla yàlla doole ko ay leer tey goudron bii bu fi amee wala tali bii moom moo ko sabablu woon waaye tegoon na ci nag dig sëñ bii ne ko maa ngi la koy defal fi waaye fas naa yéene ñuulalal la ko mu ñëw ba ci dëkk bi jàll ba ca barab Maam Moxtaar Ndumbe loola kàddu yooyu kon ñoo ngi ko koy fàttali te xam ne bëgg-bëggu réew mi di ko fàttali itam li nga xam ne moom la dëkk bi soxla te sëriñ Xabaan ci biir njaboot gi itam njaboot gi di ko ko sàkku moom itam mu di ko wax te mooy li nga xamante ne bii ñu ngi koy def ci kër yi diine yi di ko yeesalaat ak leen defaral ay barab defe naa ne kenn gënu cee yittewoo kokk gi kenn gënu cee yittewoo njabootu Mokhtar Ndoumbé ndax président bi wax na sànq naal bu rëy bi nga xamante ne bii naal nañ ko muy neuf cent et quelques million millions yoo xamante ne bii fas yéene nañ mu taxaw te loolu bu ñu ko wax bu soobu yàlla dana ci def ku yàlla baaxee yiw nga def ci sa alal yàlla boole la ci waaye bu soob yàlla dana taxaw ndax jumaa ji moo ko gënoon a metti ak jàkka jiit te lépp suñu boroom taxawal nañ ko te am nañ ci yaakaar bu baax a baax ne lool yi dana tax kon ñoo ngi ko koy fàttali di sant nag délégation yi nga xamante ne bii ñoo fi ñëw ñëpp di sant Mamadou Lamine Diallo directeur national du domaine moo ñëwal boppam fii ci sëñ bi ànd fekk mbooloo mu bari ñëw ne sëñ bi damay fasante ak yow kóllëre ab jullit nag bu ñëwee ci yow wax la kàddu yooyu loolu rek ngay mën a sàmm ci moom ba ma ngay gis leneen kon sëriñ bi nee na moom tam mi ngi koy sant ndax ba mu ko waxee ba tey saa su ne moom itam ndawam wala moom ci boppam ñu gis ko fii ci sëñ bi muy téléphone itam nag di ko nemm kon sëriñ bi nee na mi ngi koy sant moom itam di ko gërëm di gërëm itam nag monsieur Papa Diop bi nga xamante ne bii mooy meeru dëkk bi kenn ku nekk xam na mbokk gi nga xamante ne bii wax na ko ñeneen itam wax ko nga xam ne mooy mbokkam digganteem ak dëkk bi digganteem ak sëriñ bi loolu defe naa ne at mu nekk danañ ko fi wax kon Papa Diop sëriñ bi nee na mi ngi koy gërëm di ko sant di sant njaboot gi nga xamante ne bii ñoo fi nekk ñëpp di ci jiital itam kenn koo xam ne doom la ci sëriñ bi muy monsieur Maysa Ndiaye colonel Maysa Ndiaye nga xam ne saa su ne moom itam day ñëw ci sëriñ bi di saafonteeg moom di kook moom di ñëw itam di ko jottali ay kaddu yu muy jëlee ci président de la république xëy na teewu fi waaye ay njabootam teew na fi monsieur Sele Ndiaye teew na fi nañ ko jot leen nuyoo googu ak cant cant googu di sant bu baax a baax Sele Ndiaye moom nga xamante ne bii tam moom moo ko fi nekkal waaye di sant itam doomam nag soxna Kumba njaay mi nga xamante ne bii maamam defe naa ne kenn werantewul digganteem ak sëñ kokki Madou Marème ndax moom la sëriñ kokki dénkoon fële ca dëkk ba lu bëri bëri mu daan ko ko doxal mu doonoon jëwrinam fii kon loola ñoom itam njaboot gi ñu ngi koy doxal ba léegi ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di sant mbooleem ñi nga xamante ne bii ñoom ñëw fi ñëw di ay délégation di kër yi diine ñoom ñëpp sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant bi loolu jàllee nag sëriñ bi nee na association bii nga xamante ne bii moom lañ taxawal di association Mokhtar Ndoumbé Diop lislaam rek moo ko lal dañ cee bëgg jaare rek ngir liggéeyal l'islam gannaaw dañ cee bëgg a jaare ngir liggéeyal lislaam nag nee na mi ngi leen di sant di leen gërëm waaye mi ngi leen di soññ ñu góor góorgóorlu ci ba bañ koo rax te xam ne suñu borom moom subhaanahu wa taala noppi na lañ ci yéene nga xam ne mooy yéenee dundal ni ñu ko defee ci carte yi li nga xamante ne bii moo nekkoon liggéeyu Mokhtar Ndoumbé Diop sëriñ bi nee na nañ ci góor góorgóorlu sax ca loolu bu baax a baax te bañ koo rax kon loolu mi ngi koy jagleel mboolem mbokk yi nga xamante ne bii ñu ngi ci biir association yi ñoom nag ni ko nag président waxee association yi ak section yëpp góor lañ jàmbaar lañ ñi ngi taxaw ci liggéey bi seen kéemtulaay kàttan kon sëñ bi nee na mi ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm bu baax a baax nee na di fàttali nag ne gannaaw lépp lislaam la moo ko lal te suñu borom subhaanahu wa taala dafa wax ne binduma nit ak jinne ci lu dul ñu jaamu kon loolu moo nu fi andi moo nu fi bàyyi nañ koy bàyyi xel wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun bind nun ñun ñëpp itam ngir ñu xamante ngir ñu jàppoo ngir ñu bokkoo dindi lépp loo xamante ne bii mooy ak noonoo ci suñu biir sëñ bi nee na loolu mi ngi koy wax ñëpp waaye itam nag di ko wax itam nag classe politique bi ndax nee na kilifa dina gu toll ne moom ci njaboot gi lim ciy dégg njaboot gi ci biir réew mi yëpp nag moo ko tax di wax liñ ciy dégg léegi nga xamante ne bi léeg nga dégg ñuy ne ray am na ci barab sàngam léeg-léeg nga dégg ñuy wax ay affrontement yoo xamante ne bii violence bu metti la nee na loolu miinewuñu ko fii ci ngor ñu ko ci aada ñu ko ci diine ci biir réew mi sëriñ bi nee na loolu nañ ci lu bàyyi ko te jéem a bëggante bëgg jéem a soppante def la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne seenu gëm du mat mukk ci lu kenn ku nekk lam yéene boppam da ko yéene morom ndax yàlla rek mooy def te nee na yéene yooyu yëpp bu dajalee yàlla suñu borom subhanahu wa taala ay màngasin la ca yor te kenn ku nekk mën na caa am kon kenn ku nekk la nga yéene sa bopp na ko yéene sa morom sunu borom subhanahu wa taala wax ñu ne yaa ayyuha nnaas inna xalaqnaakum min dakarin wa untha wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu teg ca nag lu am solo mooy inna akramakum indallahi atqaakum sunu borom subhanahu wa taala deret ak yàpp ak loola ñoru ko la ko mooy ak ragal yàlla te ragal yàlla mooy sàmmoonteek moom ci sa wax ak sa jëf ak sa nekki kon sëñ bi nee na loolu nañ koy bàyyi xel bu baax a baax sëñ bi itam nee na ci ni mu waxoon léegi ñu gën a góorgóorlu loolu nag alam mbokk mbokk monde islaam bi yëpp la koy wax ndax kenn ku nekk xam na lislaam bi li fi yëngu fi mu toll nii nit ñi ñu ngi wax ci loo xamante ne bii aw xewtu la moom phénomène la fenn fu nekk ñu ngi koy wax te mooy terrorisme nit ñi ragal ko lool te muy loo xamante ne bii lu raglu la. sëriñ bi nee na saa su ne ay ñaanam mi ngi ko ci def ci biir réew mi ak ci feneen waaye nee na mi ngi soññee ñuy moytu itam li koy sabab. te li koy sabab bokk na ci itam aw nit nga soral leen wala nga def leen noo xamante ne bi bu ñu fippee lu mel nii danañ koy def kon loolu nañ ko moytu waaye di digal itam ñi nga xamante ne bi ñoo koy def ne suñu borom subhanahu wa taala bakkan dafa diis ci moom ba tax ne ku ko rey na mu ko waxee ci alquranul karim mel na nga ne rey nga bakkan yépp te loolu bàkkaar la boo xamante ne bii mënee su ko kafaar kon doomu aadama itam war naa moytu loolu bu baax a baax nit ñi ci seen bopp itam ñu xam ne liy njariñ ak lor lépp mi ngi ci jóge ci borom bi subhaanahu wa taala mënut a jóge ci doomu aadama la nga jóg di ko dox kenn mënu koo fonk bu neexul borom bi bu ñëpp dajaloo woon ne ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee bëgg laa jariñ te yàlla andu ca duñ la jariñ bu ñëpp dajaloo woon bëgg laa lor te yàlla andu ca duñ la lor Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul wax loolu ad-durru wa nafu min arrahmani laysa min albidaani wa suudaani lor ak njariñ njariñ lépp mi ngi ci borom bi subhaanahu wa taala jógewul ci nit ku weex wala nit ku ñuul daal di waxaat ne addurru wa nafu min al wahaabi laysa min al aadaai wal ahbaabi lor ak njariñ ma ngay jóge ci yàlla ab xarit wala ab noon mënu la ko andi kon loolu itam nee na nañ ko bàyyi xel bu baax a baax benn bi nga xamante ne bii moo ci mujj nag te mu concerné encore li nga xam ne moom la ñuy wax monde islamique kenn ku nekk xam na ne président bi nga xamante ne bii moo jiite états uni d'Amérique ci suñu jamono jii nu toll dégg ngeen mu cité ba mu demee li mu jëkk def cité juróom-ñaari réew l'islam ne ñii bëggatuñ ñu teg seen tànk États-Unis d'Amérique loola ñëpp xam ne bokk na ci noonoo goo xam ne da koo dencoon démb tey door a ñëw jëmale ko ci lislaam waaye fam ña doonoo woon islaam fañ mujjoon rek foofu lañ mujj mooy alxis wala aar wan niiraan ëllëg yàlla na ci yàlla musal loolu nee na bi nee bu ci benn jullit am lu ko metti wala lu ko naqari te xam ne la yàlla suñu borom subhaanahu wa taala waxoon ci alquranam ju tedd ji nga xam ne moo lay taay lislaam inna nahnu nazzalna dikra wa inna lahu la xaafidun noonu itam la def jullit yi kon boog nee na loolu ne leen wóor ku jóg bëgg a noonu lislaam bëgg a noonu jullit yi perte nga toroxtaa nga dong la lay jural te yaakaar nañ ne loola itam ma ngay daal di am ndax moom fa mu ko defee jur na fa ak noonu goo xam ñoom ci seen biir jubawuñ ci bari na état yoo xamante ni tey bañ ko waxee dañoo lànk taxaw kon nee na loolu moom bu ci am kenn bu ci nit am lu muy réer bi mujj nag mooy lu jëm ci biir réew mii parti politique yi fi nekk kenn ku nekk xam na ne takku nañ te benn bu ci nekk yëngu na ñëpp xam nañ ko ab théâtre politique yi ku koy topp xam nga loolu amu ci benn bu yënguwut mooy bu nekk au pouvoir mooy xam bu ci nekkut gannaaw bu nekk au pouvoir ak bu ci nekkul ñoom ñëpp la nañu xam ne li ñu bëgg lépp yàlla moo ko man fexeel sa morom wala nga fexeel sa mbokk dal dara du la ko ci may kon la la koy may mooy nga góorgóorlu bu dee réew mi moo la ñor intérêt réew mi moo la ñor te nga dox ci liggéey ci da nga ci da am te nag lenn doy na ci mooy kii fi yàlla teg président de la république tey juróom-ñetti at ca gannaaw ko ko ko laajoon xel xelam bokk ci woon ndax moo ko waxal boppam waaye gis nga ba ko yàlla namee yàlla lum nam sabab ya day yomb gannaaw lu yàlla nam sabab ya day yomb kenn ku nekk da ngay sabab lu te rafetal sa xol rafetal ko sa digganteeg sa borom rafetal ko sa digganteeg say morom kon loolu nit ñi war nañ koo bàyyi xel bu baax a baax waaye ak i kalan taxul kenn avancé taxul kenn dem sëñ bi leen na loolu na ngeen ci góorgóorlu bu baax a baax beneen bi ci des itam mu wax ne dund gii nga xam ne moo ñu fi boole lu gàtt la kon nit ki war na cee farlu bu baax a baax ba li nga xam ne moo ko fi indi bàyyi ko fi mu góorgóorlu ci tey lan mooy lan mooy jaamu yàlla ak sellal ko wa ma umiru illa li yaabudullaha muxlisina lahu diina hunafa loolu danga moo ñu fi te dund gi gàtt na lool danañ koy faral di wax ne kenn ci ñun mënut a toog ne diw mooy sama maami bàyyi ma nga ne kon boog la yóbbu yooyu ba tax mënoo ko wax yow itam du la fi bàyyi tuutee la fi dese kon kenn ku nekk na ci góorgóorlu rafetal ko bu baax a lii la sëñ bi waxoon nañ ko wax di ñaanal mbooloom yépp nii ñu fi dajaloo yàlla suñu borom subhanahu wa taala dim dimbale ñu ba ñu waat fii déwén te lu fi waay manoon di ko def yàlla suñu borom subhanahu wa taala fulal la ko képp ku fi andi woon jàngoro yàlla suñu borom subhanahu wa taala saafaral la ko képp ku fi andi woon aajo yàlla suñu borom subhanahu wa taala saafaral la aajo bi yëkkatil ñu suñu Sénégal gii ba mu dem ca kaw ba ñu di ko dégg fépp waaye lépp nag ànd ak ragal yàlla ak jaamu yàlla gi nga xamante ne bi réew mi réew jullit la réew julli réew moo xamante ne bii dañoo waxoon boobaa ak léegi ëpp na soixante euh, cinquante ans ñu ne quatre vingt quinze pour cent musulman la yaakaar naa ne ku fa dem fi toll nii war ngaa xam ne lu ëpp quatre vingt dix huit pour cent ay musulman la kon nun ay julli lañ gannaaw ay julli lañ war nañoo sañ am taxaw ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu taxawal nu suñu suñuy mbir te suñu borom subhaanahu wa taala mooy ki nga xamante ne bii boo ko ñaanee mu mu may la. te itam mooy ki nga xam ne mooy maye mooy xañe kon loolu yàlla na ko suñu borom subhaanahu wa taala defal di sant ñëpp di ñaanal ñëpp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 رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم واجعله لنا حجة يوم الدين اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات وذكرنا بما ضربت فيه من المثلات وكفر بتلاوته عنا السيئات إنك مجيب الدعوات اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهو أو نسيان aw taxriifin aw taqdiimin aw taaxiirin aw ziyaadatin aw nuqsaan aw taawiilin ala gayri maa anzaltahu aw tacjiilin cinda tilaawatihi aw kasalin aw sayxin lisaan aw xuufin bi gayri waqfin aw idgaamin bi gayri mudgamin aw idhaarin bi gayri bayaan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 ونبهنا قبل المنايا من نوم الغفلة والكسلان وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث واعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكنا وسط الجنان القرآن وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أخزاننا وذهاب غمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنة النعيم اللهم اجعل أنيسنا في الوحشة ومساحبنا في الوحدة ومسباحنا في الظلمة ودليلنا في الخيرة ومنقذنا في الفتنة واعصمنا به من الزيغ والأهواء وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم اللهم اختم بسعادة آجالنا وحقق بزيادة آمالنا وقرن بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا واسبب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا اللهم اجعل تقواك زادنا والثقة بك سخرنا واعتقادنا وأمن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلادنا بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح سيدنا ونبينا محمد ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولأرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وذرياته وأصحابه رضوان الله وأصحابه رضوان الله الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ولأرواح جميع المسلمين والصلاة والسلام على سيدنا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين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 ربي بما يشره الأذهان قد فجاء بجاه أفضل من لله قد لجا حمدي لرب الكريم لا شريك له وصدري اليوم نورا ساتعا ملأ محمد صلوات الله في أبد عليه في حزبه كل به كلا أدعو إله الذي عمت مواهبه لجملة الخلق ما يختار من برا ناجيته جل أعواما وكرمني تكريم هاد وكل من لغا برئا رحمن هب لجميع الخلق رحمة من يغني عن الشر من قرآنه قرأ خذ أمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من جدهم بدأ يا مالك الملك يا من جل عن قود ارحم جميع الورى يا هاديا رداء يا مالك الملك يا من جل عن قود ارحم جميع الورى يا هاديا رداء محوت ما قد نهى القلب من ضرر بجاه أفضل من لله قد لجا محوت ما قد نهاه القلب من ضرر بجاه أفضل من لله قد لجا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin